audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi jallat qudratuhu wa alat wasalaatu wasalaamu ala man sarrafahu bi risalati samad mbokk jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man oustaz sidi ahmed mbay bu shérif ibrahima haydara attijaani maa leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ziyaare ci télé bu tedd bu sell bii ñuy wax Tawhid TV di yaakaaru askan bi tabaarakallaahu nuyoo yoo xamante ni moo ngi ànd ak ziyaar ak ndokkeel ak jox ko ci nekk wàccuwaayam tabaarakalla e, di jiital ci nuyoo yi ak ndokkeel yi ak ziyaar yi nag xalifa général de Tidiane muy papa Serigne Babacar Sy Mansour tabaarakallaahu ñu diko ko ndokkeel bu baax di ko ziyaar mbokk jullit yi ñu leen di nuyu bu baax ci télé bu tedd bu sell bi di Tawhid TV di yaakaaru f eh, askan bi dafa am lu tax nekk ñu toog fii loolu mooy lan koor gaa ngi jub si te weeru koor bu jubee fa émission yu tedd yu sell jub waaye émission bu tedd bu sell la nar a am ci télé bu tedd bu sell bu ñuy tuddee Tawhid TV di yaakaaru askan gi nar koo ànd ak mbokk jullit yépp a nekk fa tabaarakallaahu émission boobu ñoo ngi ciy invité mbokk jullit yépp a nekk dañu bëgg ñi ñu am yépp ñu ñëw ci ndax bitim réew nañ ko suivre waaye képp ku nekk ci biir réew mi tey bëggee oustaz Sidi Ahmed Mbaye ak alxaaji Massar Sarr ñoo ngi la ci invité ndax émission boobu ñooy bokk sekk sekk ko tabaarakallaahu di ci invité ñépp nekk waa Morola moo xam lukus daaru moo xam lukus day jaasa moo xam waa daara alpha moo xam waa kër yisu moo xam waa njaay bopp ñëpp rek waa kassa ñoo ngi invité ñëpp bëgg nañ nekk ku ci am jot rek teew ci émission ba fee ca CICES incha allahu rabbi ñoo ngi ciy invité ñëpp tabaarakallaahu mu mel ni boo invité ay nit nga wax leen lan nga war a waxtaane li ñu war a waxtaane mooy soxna su yiw soxna su tedd soxna su sell soxna soo xamante ni moo njëkk a def médecine ci kaw suuf muy Aïcha di soxnay Sayyiduna Muhammad moom lañu ñu nar a waxtaanee ay jaar-jaaram ak i nekk téefam mooy ka nga xamante ni ñi duggoon ci loxol rasulillahi ñëpp ay mag lañu waaye Aïcha rek moo ciy jànk Aïcha jànk bi mu doon tax na ba benn bis am lu xew ci diggante mook rasulillahi ba nabi bàyyi leen ca kër ga dem ca jàkk ja am fa fa tabaarakallaahu jours 29 jours yooyu nekk moom la ñuy wax ni ci la weer di yem weer du ko weesu 29 jours rek lay am ndax yonent bi mu génnee ci jàkk ji ci la wax xadis bii may bëgg a wax dafa boole ñaari loxoom ne asahru hakaza muy fukk waxaat asahru hakaza muy fukk mu bankaat benn baaraam bi ne wa hakaza muy muy 29 fa tabarakallahu kooku moo waral asa an yubaddiluhu asa an yubaddiluhu mooy aaya bu tedd boobu rek fa tabaarakallaahu muminatin muslimatin xaanitaatin taaibatin saaiqatin sayibatin wa abkaara mooy aïcha fa tabaarakallaahu kooku la ñu bëgg a waxtaane moo waraloon yaa nisaa annabi bëgg a waxtaane muy aïcha ku ñëw dinga nga dégg ñu ngi ciy woo mbokk jullit ñépp waaye nag fa tabaarakallaahu ginnaaw bi ñu wootee ñu wax leen date bi nekk kañ lay am kañ lay am bu ñu duggee ci weeru koor gi bu weeru koor gi àggee la 15 ci weer wi ci lañ koy def fa tabaarakallaahu waaye nag pour nga gën koo comprendre ñu ne la deuxième ajjuma rek ci weeru koor gi incha allah la def émission bu tedd bu sell boobee fii ci Tawhid TV tele bu sell bu tedd bi tabaarakallaahu di wéttali jaamu yàlla yi di wéttali ñépp muy tele askan gi kon mbokk yi fa tabaarakallaahu ñoo ngi leen di woo ci heure bi nekk fa tabaarakallaahu à partir de 11h la émission bi di am ñoo ngi ciy woo mbokk jullit yépp nag bàyyiwuñu kenn képp kuy dégg suñu kàddu ñoo ngi lay woo woote baa ngoog mbokk yi nañ fa daje insha allahu rabbi bu soobee yàlla asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, ah, ah.